asalaamaaleykum man la Marème Fall euh, coordonnatrice mouvement les amis de Karim Wakhinane Nimzatt euh, membre commité directeur conseillère municipale Wakhinane Nimzatt. d'accord ñoo ci déclaration waa tey li ñu taxoon a daje fii mooy euh, tey jii suñu ànd bi suñu suñu kii bi ñu def suñu coalition bi ñu def. Mhm. suñu coalition bi ñu def te Ablaye Wade defal ñu ko tànnal ñu ko ne ko nañu coaliser ne nañu coaliser mooy booloo bennoo àndandoo ngir jële fi Macky Sall ñun ñëpp nañu booloo ñun ñëpp nañu àndandoo ñun ñëpp ñu joxante loxo bépp euh, opposition bu fi nekk ñun ñëpp ñu àndandoo joxante loxo ngir Macky Sall jóge fi Karim Meïssa Wade mën a ñëw bu ko defee euh, bu ñu demee assemblée nationale bu ñu fi amee majorité ñu mën a fexe ba Karim ñibbisi ci réew mi ndax bu ñu amee majorité Karim dina ñibbisi ci réew mi. loolu moo tax tey jii coalition bi Abdoulaye Wade ba mu ko defee ñun ñu ànd ci coalition bi daal mooy ne ñëpp àndandoo ne ñëpp booloo ne ñëpp nekk benn nala ne ñëpp nekk benn xooluñu dara gëstuwuñu dara dañoo bëgg rek ñun ñëpp ñu nekk benn àndandoo. joxante loxo di seeti képp ku ci bokk ñu jëli la képp ku fi nekk ñu ànd ko moo tax tey waa solution taxaw àndandoo massifier parti bi bokk ndey bokk baay àndandoo daal dem assemblée nationale am majorité loolu moo ñu tax a jóg. loolu mënta ñàkk ndaxte bu bu tànn amee rek am ñu mer mais ñun tey jii kenn warul mer ñëpp dañoo war a jàpp ngir ñu dañoo bëgg Macky jóge fi tey jii. dañoo bëgg Macky jóge fii ngir ñu am majorité moo tax tey kenn warul dem ñëpp a war a toog ñun loolu mooy suñu xeex tey loolu muy suñu àndandoo loolu la ñuy jàpp tey ñun loolu lañuy woo ci nit ñi dañu woo nit ñi ci bennoo woo nit ci àndandoo woo nit ci nekk nekk benn ngir bu ëllëgee Macky jóge fi ndax ñun suñu candidat la ñu bëgg mu ñibbisi dañoo bëgg am euh, majorité assemblée nationale xat yi xat-xat yi fi am moom du xat-xat yu tax ñu rëy ndax tey njoogu Malick Dieng moom mooy suñu président section euh, département xëy na nag nee nañu bas mooy mandataire bi mais ñun Ndiogou Dieng mooy président département bi ndax moo fi nekkoon te am na ñu ko fi teg mooy section yi ñoo ko fi teg comme section yi ñoo ko fi teg nag section yi ñoo ko fi war a jëlee du kenn nit rek moom mooy ne tey Bass moo fi nekk wala keneen moo fi nekk ndax tey ñu gën a bëri ci géejawaay président bi la ñu àndal ndax ñoom ñoo ko fi teg muy cinq section géej képp koo gis demu fa rek ko yëgul ndax loo gis rek am na fu mu war a jaar bu ñëpp wootee ñëpp ñëw rek xamal ne ñëpp yëg nañ waaye bu ñuy ñëwee ñu yëgu ñëwuñu rek xamal ne ñu ñëwul dañoo yëgu waaye ñun tey li ñu tax a jóg mooy ñun mooy na Karim Wade nan lay def ba ñibbisi ci dëkk bi ñun du problème mu bokk ci ay liste du problème mu leneen ñun suñu problème mooy na Karim ñibbisi ci dëkk bi très loolu mooy suñu problème ñun waa solution ak ñun waa waxi naan leen sax Macky bañ a bokk